ah seet ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou Fall soxna Nafi Fallou Fall aka doy a la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow li amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloo ngeen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee saa su ne di ànd ak yéen ci li nga xamante ne moo di seen émission Dóor waar Dóor waar nag saa su ne dañuy am mbégte bu baax a baax a baax di ci dalal ay kilifa waaye tey nag ma am moo ci seet si suñu papa suñu papa Yoro ñu xam ko bu baax a baax a baax ci góorgóorlu ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne mi ngi ciy def di ci tedd waaye aussi di ci def di ci dimbali li xamante ni moo di njabootam te xaalul dara dama koy bàyyi rek mu ndiyok bokk internet yi maam Ali ma soog a ñëw ak moom ci li nga xamante ne moo di waxtaan papa Yoro maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar ñu lay fay bu baax a baax sëñ Ali uh-huh. di kontaan ci yow. wax dëgg yàlla affaire bi moom nii rek la. ay xale bu ñu nekkee fenn di yëngu. des fois nga seet ci leen ñaax leen da ciy baax. parce que da gën a tax ñu gën a góorgóorlu. waaw loolu moom wax dëgg yàlla du rafet ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. macha allah yéen a ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax comme ni nga ko waxee rek tey euh, bëgg naa tey papa ñu dooree waxtaan bi ci li nga xamante ni tey bëgg nañ koo gën a concentré wu ak ndaw ñi papa Yoro tey su ma doon ñëw ak yow tuuti rek ci jaar-jaar bi fan nga juddoo fan jaar ba yegg si fii nii waaw d'accord man maa ngi juddoo Pikine. Uh-huh. màggee fa. Mm-hmm. mais maa ngi ñëw parcelle depuis 87. Mm-hmm. maa ngi parcelle. Mm-hmm. yàlla def na ba mu ñëwee parcelle ba léegi nag presque ci nettoiement laa ci nettoiement laay liggéey. yàgg naa ci it. yàgg naa ci nettoiement lool. instant bi may wax ak yow nii ci laay liggéey. mais damay de su ma wàccee. ci oto bi dama ñëw fi ut benn genre place bu ndaw. ñëw des fois di recycler. for benn affaire. mu paanoon ma defar wala su ma mënoon defar fay sam benn nga mu defaral ma mhm. en même temps ci liggéey bi bi may liggéey tamit mhm. maa ngi ciy jàngale mhm. fii laa ko xamee fii laa ko xamee ci marché que ci ba liggéey ñoo nekk sama naw nekk fii wax dëgg yàlla muy samay rak samay mag ñoo bokk nekk ci marché mu rafet lool parce que booy xool quatre-vingt-dix ba ñu ngi ci xam nga moom nag lu ñuy yëkkati mooy njaboot moo ñu yëkkati. Mm-hmm. parce que toll nañ tey fii ne nii suñu papa tolloon. Mm-hmm. parce que ni boo demee de mam jabar am doom. Mm-hmm. responsable nga léegi. kon da war a xam bu baax ci li ngay dugg ak fa sa tànk ak ci li ngay yëngu. mais teewul boobu léegi nag am nañ sunu métier nag. sunu métier mooy ci li ñuy liggéey di ci am par fin de mois sunu xaalis. ci loolu laa bëggoon ñëw ginnaaw bi nga xamante ni euh, Pikine nga juddoo yaroo fi nga xamante ni aussi moo di parcelle nekk ci lii di góorgóorlu euh, ci wàllum jàng jàng nga tuuti ba xaw cee sori. si si. Uh-huh. comme fi gars yi sam dem naa ba SEM2. Uh-huh. waaw dem naa ba SEM2. Uh-huh. loolu laa mujjee bàyyi. boobu 87 ci laa mujjee bàyyi après ñoo toog parcelle bi. ñoo toog parcelle euh, ci métier bi nga yor ban métier liggéey ba am ci profession laata ngay ñëw ci liggéey bi nga xamante ni ci lañ la fekk nii. waaw c'est que ci presque mu ñëwee parcelle. Mhm. ba ma ñëwee fii dama ñëw def naa fi tailleur. Mhm. mais après par la suite xam nga li ñuy wax góor boo nekkee ci benn affaire. dem ba mhm. ci yàgg boo gisee lu ko tax danga ciy dellu ba keroog ma koy tanewaat. mais ma gis na xëy na liggéey fenn mois nga am dara bokkul ak sa taabu taabu bopp. te gis naa ne liggéey bi xëy na métti woon na. bu njëkk ba métti woon na trop par rapport ak c'est différent léegi neex na. parce que ku ne xam na ne liggéey mbalit métti na. mais boo ba instant moom neex na. parce que bu njëkk ba ci ay camion lañ doon liggéeyee liggéey bu difficile da ngay xëy 6 heures du matin parce que balaa nga wàcc ay minuit des fois nga enchaîné ba guddi léegi nag liggéey bi neex na toltul foofu noonu xam nga daj naa ci lu ne am naa ci lu ne am naa jaar-jaar benn jour parce que accidenté naa ci def setoo presque 4 mois et quelques benn fracture moomoon ci tànk bi mais sant yàlla dafa gënoon ci man parce que xëy na moo naa fa jaar ñàkk sama bakkan mais yàlla tuddoon dafa waroon bokk sama gis-gis sama jaar-jaar da cee waroon bokk da cee waroon bokk man nangu ko it mhm. nangu dogal xam nga teewul yàqul ma dara sama activité mhm. maa ngi continué liggéey sem ba léegi ba yàlla dimbale ba ñu embauché ñu ba ñu nekk parce que yi bari fii lañu fekk mhm. yàgg naa ci sem bi loolu parce que boo xoolee naa ci presque trente cinq ans mbaa lu ko ëpp te boobu ba léegi maa ngi ci mais boobu xëy li ma la gi ñëwaat nekk sa benn affaire parce que yëpp booy xool presque ci lañ koy jëlee am na nga am dañ koy jënd am na nga am dañ koy récupérer ci gars su ñëwee bu paanee comme yéen mun nañ kaa defaraat bu ñuy am ci dara yóbbu njaboot ci liggéey bi nii nga xamante ne moment bi ci laa la fekk bi ban wàll ci lan ngay yëngu nii papa instant bi instant bi nii lii lay ñuy wax recyclage mhm. parce que recyclage boo ko déggee mooy soit tey ci gàttal ni ma la ko mën a waxee mhm. tey lu mel ne régulateur bee ne waaw dama kaa jënd xam naa ne baaxul mhm. la ci yàqu xëy na mën ma ko defar mais sama grand bi taxawal léegi mhm. moom loolu métier la mhm. su ma demee fay mu defar ko ma raxasaat mu naa tegaat léegi ëllëg nga dem ci magasin mhm. xam nga bari na ci ay yu mel noonu parce que kii nii tey sama benn gars laa ko jëlee léegi mais xam naa li ci manqué parce que maa ngi doon jéem di ci pour xool li ci manqué xam naa pour compléter ko damay wut yeneen bagage yi compléter ko ba telle sorte tey fi ne boo demoon ci magasin mën nañu ko jaay à 10 000 na 000 francs mais bu ñu paree jaay. mu nekk liggéey boo xamante ni ndax yéen a ngi ciy gis seen bopp. waaw ñu ngi sant yàlla ñu ngi ci sant yàlla. Mhm. parce sant yàlla mooy même bu dul xaaj bi sax xam-xam bi. Mhm. Mhm. même bu ñu jëriñu sax mën nañu jëriñ keneen. parce tey noonu joxe mën nañu jox exemple tey su ma gisoon tey benn xale bu nar a yàqu tey. deful dara jàngul jàngul métier. di taxawaalu. war naa kaa mën a woo teg ko sama wet. xam nga. di nga xamal ne fii nit ak loo mën nekk gëmal sa bopp. parce que gëm sa bopp mooy waral lii lépp. kaay nga jéem a xool ut dara. même bu doon cent franc ngay am par fin moo gën. dugg ci loo warul dugg. parce que boo tëddee da nga am esprit tranquille nit waroom sens interdit. nit waroom sens interdit. heure bu la neex dox heure bu la neex fu la neex jaar. mais boo amee loo defee am na nga am da nga fay da nga fay éviter jaar parce que yaa ngi tey muy xool ñuy defar muy xool ñuy defar ëllëg moo fi nekkul moom mun naa defar mhm. kooku njëriñ la moom ëllëg njëriñam la moom mën na ci jëriñu ëllëg ndax mën na si jëriñu ëllëg macha allah li gën a waral tey euh, jotaay bi ñu seq ko ak suñu papa ji dafa concept boo xamante ni jug liggéey lañu ñu ko tuddee ndax bu ñu xoolee jamono fii nga xamante ne moom la tollu donte ne liggéey bëriwul waaye bari nañ ay ndaw yoo xamante ni jug liggéey yi dafa bokk seen jafe-jafe ba taxit kàddu yi ñoom deq na ci ñu koy dénk ndaw lu toll ci liggéey war a góorgóorlu bañ a xaar état a xaar dara yan kàddu nga koy wax. waaw mooy xam nga mooy li ma la wax rek ñun ñëpp jaar na jeunesse. Mhm. jeunesse période la rek. Mhm. toolu ci dox ko dépassé ko ba ko. Mhm. jeune nag bu bëggee am xale bu bëggee am job day teel a jël responsabilité xam la mooy jël responsabilité. bul xeeb dara. en tout cas leen rek laay bañ man ci xale. bul sàcc. bul fen dërëm ba ngay am. di ko dajale moo gën junni bi nga am léegi. wallaahi. parce que petit à petit boobu ngay dajal noonu. Mhm. bu ci kanamee dina nekk ñaar dërëm dama nekk fukki dama nekk téeméer. Mhm. parce que boobu da faa xaar. Mhm. parce que dara du métier. métier du moroom dara. même boo ci deful pour yow sax am na keneen koo ciy jëriñ. parce que ngay woo di ko jàngal. kooku déjà yaa ngi koy dimbali ko am na keneen ku mu war a parce que gis nga CV dafa baax des fois nga yàq foo jaar. parce que tey rafetoon na tey xëy na comme exemple nu ma ko mën a joxee. Mhm. tey fi ne am na lu ma lay am na lu ma lay jàngal. Mhm. tey nga dem tey ba nekk ci benn haut niveau bi. boo la laajee danga ne kat jaar naa sama benn gannaaw bu ñuy wax parce que xam nga mos na ma jàngal lii mm. CV wu dafa man loolu daf ma neex man mm-hmm. la fekk ci neex man parce que mm-hmm. fier la ci man mm-hmm. waaw la nga ciy am nag après yow la quoi après boo amee reconnaissance xam ne kat gannaaw bi métti woon mu jaar fi jaar fi benn kat gannaaw jàppal ci man mootuma da dara mais day rafet ci man acte boobu mooy neex quoi acte bi ma neex man waaw euh, di liggéey bi nga xamante ne waaw des fois nag problème mu mooy da ciy joué bu baax a baax a baax a baax a baax. mais tooguñu rek di xaar. teewul ñu ngi dem suñuy góorgóorlu parce que comme li ma la expliqué rek. tey fi ne lu ma am na li nga ne fi ne soxla naa ko. xam naa ne man mii naa ñii lee mooy seen liggéey. su ma demee jël ci kii lii jël ci keelee jël ci keelee. taxale mu doon benn affaire. xam nga loolu dina am parce que loolu mënul ñàkk ci liggéey. Mm-hmm. mënoo soxla li nga am yëpp am. Mm-hmm. mais des fois li nga manqué mu nga complété ci nit ñi mhm. mais pas toog na damay xaar non mhm. état mënul defar ñëpp mhm. problème bi nekkal ci benn affaire ku la ciy dimbali fekk la ci loolu ma jox la benn exemple tey su ma yàlla dimbaloon tey maam moyen tey di dimbale di xool boo yi may yóbbu pour ñu tukki mais boo yi teel a fajaru day guddee wàcc laa yóbbu mais ñi tëddee nelaw. Hmm. non dama naan wóorul. wóorul man la sama xalaat. Hmm. waaw xalaat jaar yoon man sama xalaat la man lool. Hmm. parce que man loolu laa gëm quoi man damaa gëm da ngay nekk ci benn affaire di ci ñafe bañ fekk la ci. te boo toogee gis Sénégal ndaw yu bëri dañuy taamu li nga xamante ne aussi mooy liggéey ban gis-gis ngay am ci loolu. waaw parce que loolu moom. grand boo bëggee dégg-dëgg gis nga neexul ba neexul mais des fois d'une part état day nelaw. ci naka. état day nelaw. ci ni ma gisee Sénégal ni muy doxee léegi. exemple laa la bëgg a jox tey fi ne nii benn gars mu demoon tey exemple. def formation commando. def li mu war def lépp. nga jàngal ko lépp nga xamal ko lépp lépp mu xëy nga ra nga xëy nga détaché ko mu dem yoonam. kooku dèjà yaa ngi koy wutloo beneen pexe. yaa ngi koy wutloo ko parce que boo ko jàngalee ba pare. da nga ko war a jëriñoo ko. c'est mais bu ko baax mu dem mhm. parce que bu demee mën na dajeeg yeneen booy yu mel ni moom mhm. te bu day gën a métti ñun mhm. ku ne xam ne dëkk bi wóorutul insécurité bi total dañuy bokk suñu baax suñu bopp yàlla rek ñun liggéey wàcc bu ñu wàcc xëyee suñu kër lañ jëm jógee buñ ñëwee fii pare dañuy baax suñu kër ah. amuñu benn temps bu ñuy perte sàmm suñu njaboot parce que ay mag lañ a war a cadrer suñuy xale war doom ñeneen ñeneen kon loolu état moo ci waroon njëkk taxawu. nit buy def benn affaire ñëwal xool li muy def poussé ko ci jàppale ko ci lan nga soxla mu wax la même bu mënul def lépp nga def benn acte ñoo xam ne kat kii kat carrément mi ngi def dara mais ñu ngi ko ciy dimbali. mais fii dañoo tam affaire politicien politicien looloo ñu tàrreel. Mm-hmm. ci ñun. Mm-hmm. loo bëgg gongo. Mm-hmm. bokkal ci ñun. soo bindee sax kenn du la faale. Mhm. Sénégal loolu ñi nga xamante ni yéen nekk li ci liggéey comme ni nga ko waxee comme que da ngaa a laal tuuti état ndax du ngeen faral di dégg léeg-léeg ay propos yoo xamante ne ñoom dañuy ñëw di leen ko dig te après du ngeen ci teg bi waaw loolu moom mooy li ma la wax sànq gis nga état. Hmm. dinaa la xamal bokku ci boo ci bokkee. Hmm. xam ñu xàmmee la. Hmm. yow boo bindee mën naa bañ a yàgg mais boo ci bokkul moom. xëy na yàlla moo la ci boole waaye du question que ne dañuy xool ne kat kii war nañ kaa mën dimbali parce que ñoom ñoom pour ñoom gën a jege gën a yee la ñuy def daal ñoom ci gàttal. askan bi ci ginnaaw duñu leen faral di. bàyyi xel non non non ñoom kañ leen soxla. Mhm. élection jege si la waxal lañ la war a wax. Mhm. xam nga ànd yow benn lak sa temps li ñu amoon soxal nañ ko par nañ ci ñu ngi ci beneen bagage boo leen so boo leen gisaatee élection moo jege si waat. Mhm. loolu nag ku ci muus moom. man damaa liggéey na nit kenn ko nax ñaari yoon.

Hmm? situation yi fi mu toll nii ci politiciens yi. waaw ah. nga ci gis ku dal sa xel. koo xamante ni gëm ngeen ni tey euh, war na leen mën a jàppale wala war na mën a defaraat bu baax a baax a baax li nga xamante ni instant bi mooy suñu réew. waa instant bi ci ñu ma gis ñii hmm. politique. Hmm. di génn di wax seen programme. xëy na lu ma ne Macky Sall sa deful dara. def na dara. mais des fois gestion bi ci gin entouram. loolu la président même mais entour bi ci moom. ñun la ñuy dégg. Mhm. ñun loolu moo ñuy sore. Mhm. mais c'est pas le président. Mhm. ba ñu fiy teg Ablaye Wade. Ablaye Wade kenn waxul liggéey liggéeyu mais la ñu bëggoon gëm loolu la ñu gëmul loolu. ñun dañuy baax ñu tànn suñu bopp ku ñu neex. Macky Sall ñu Macky Sall mais encouragé am ci ni ñuy doxalee. naan dëkk bi dafa dëgër nga dégg ñuy may ay milliards ci yu ñàkk fayda. loolu moo ñuy metti ku mel ni Sonko comme opposant programme am. ci li ñuy déggee muy waxee. bés bu jotee Sénégal li bëgg a def. xam nga nit moom li mu bëgg a def sant baati ko loolu mooy def loolu lay def. Mhm. parce que ñun woote nañ ci jamonoy Abdou Diouf. Mhm. woote nañ jamonoy Senghor. Mhm. Ablaye Wade Macky Sall kon du ñuy ñëw ñoo ñuy jaaxal. xëy na ñu mujjee judd fulut mun na ñu yóbbu ma ñun loolu ko fu ñu. te gars nañ bàyyi xel ci benn affaire gis nga Sénégal. ñiy fal di folli. ñu ngi ci kër yi génnuñu. génnuñu. imagineel kër gi nga dëkk. yow boo dee politicien bàyyi nga bis yi nga xam seen yoon newul ci politique. ñooñu mhm. programme la ñuy déglu. programme la ñuy déglu. Mhm. mooy sama kër muy kër keneen ak keneen nag bari nañ ci dëkk bi lool. Mhm. kon ku foog ne boo wootee ñi génn ñoo ñooy fal ñooñu faluñu ñi faluñu ci kër yi. dëgg la leer moo leen taxafal. lu leer moo leen xam naa ne yi am na solo loolu ci li nga xamante ne aussi moo di waxtaan bi nga xamante ni ñu ngi koy séq ak yéen euh, ci émission bi nga xamante ni moo di euh, jug liggéey ndax it jug liggéey saa su ne rek war na ndaw war na mag waaye war na góor aussi war na jigéen ah ndax it euh, réew bu bëggee développé wala bu ñu bëggee yi li nga xamante ne moo di réew mi na ndaw góor nag ñëpp taxu def li nga xamante ne moo di liggéey waaye ñu jàppale leen si bu baax a baax a baax tey papa bu doon ay ndimbal yoo xamante ni tey soxla ngeen ko wala bëgg ngeen ñu jàppale leen ko ci liggéey bi nga xamante ni yéen a ngi koy liggéey euh, loolu lan lay doon. waaw xam nga instant bi nii li olof naan di ma may jën jàngam lu ñu nappe moo gën. Mhm. ndax su ma la gisul moo demal sa bopp. c'est vrai man soxloo ma xaalis bi. Mhm. mais utal ma espace. Mhm. fi nga xam naa fa dugal ñu siy xëy daan seen doole. ak tuuti accompagnant rek. xam nga. mën nañ cee góorgóorlu ba formé ci ñeneen. Hmm. bu ma jox xaay soxla ma loolu. Hmm. utal ma espace ma toog ma woon fi ne naa toog liggéey tranquillement hmm. la gars yi di jaay téeméer. ñun mën nañ kaa jaay juróom fukk. def suñ participation ci dëkk bi pour loolu. parce que mun mënuñoo defar lu bees mais mën nañu loo leen defar. bu yàqoo mun nañ cee créer leen defar ci keneen kenn mën kaa jëriñoo. Mhm. parce que ñëpp mën dem magasin. Mhm. waaw te ñooñu ci réew mi lañ bokk. waaye tey image bi nga xamante ne ñu bëri dañ ko faral di xoolee ci ñenn ñi nga xamante ne dañuy for wala dañuy jënd di defaraat dafa am benn image bu ñu leen di xoolee image boobu noonu nag ngeen koy gisee yéen. waaw waa que ñun dañoo xamul. Mhm. parce que des fois da gis ku ñëw. qualité bi muy soxla bu njëkk qualité amoon léegi quantité am. ñun nag lu bees daf ñuy sonal. qualité bi. fii nga ko mën a amee. quantité bi nga mën a amee ci magasin bi. parce que ñi nga fiy defar yu bees di nga fi indi. xam nañ population bëgg nañ mais seen dool demeewul noonu. ñu lay jaay li nga xam pour benn fan la. am li nga xam tey boo ko jëndoon bu ñu tey fii ñun. bu ñu dañ koy changé comme grand bi faral di ma ne ma faral nekk bi. tey boo ñëwee ci ronge li muy defar nii. ku ne xam na ne ronge boitu ronge foo amul. Mhm. fii lu foo moo am mais buñ ñëwee. Mhm. ak Sénégal yi ni mu matériel comme quoi que ni ma la ko mën a waxee tey fi presque lu bëri courant la. Mm-hmm. am na qualité fil bi nga xam ne mënul téye matériel yu bëri. Mm-hmm. Mm-hmm. bu ñëwee ñu dañ koy préféré dindi fil boobu def ci fil original bu ko defee yow la nga a bëgg ko ci. a a ah, bi yëpp. fil boo ñëwee da ngay dem ci su ñu xamee kii wan ñu defal la ñaar na la carrément. trois tours. mille francs. trois tours jëm kaw mille cinq cent. léegi yaay xool fi sa poche tool nga dal ci. mais bu dee magasin benn prix leex amul tur amul dara. moom ci bees lay jënd parce que gars yi dañoo bëgg lu bees. mais qualité moom boo ko il faut ngay recycler. ñu ci deuxième mai bi. te loolu lépp fii ngeen ko mën a amee muy liggéey bu am solo boo xamante ne ba tey rek euh, ndaw ña ngi koy def waaye aussi mag ñi toog ñu di seetaan ndaw ñi ndax it saa su ne rek euh, ku ne rek dañu koy faral di wax bu kiy jàppee fii kiy jàpp fee bu yàggee gaal gi dina dem te loolu la ñu bëgg si li nga xamante ne moo di si suñu gaal euh, kàddu ñaaxaat ndaw ñi ci bañ xeebaat rek mu ñëwaat ci ak yow ba tey rek yan kàddu lay doon parce que liggéey rek ay dëgg papa waaw gis nga comme li may wax booyee rek. Mhm. li may wax booyee temps. Mhm. nit da sa bopp. Mhm. tegal sa bopp day njëkk ci yow. wallaay dëgg la. parce que yow boo imaginer ne fii nga tëdd moom ko te da nga kaa war a am. Mhm. muy kër gi nga nekk. Mhm. ëllëg da ngaa war a papa. Mhm. parce que li may wax benn booy na nga ci liggéey bi ma nekk nii. booy laaj doon dégg. dem ba ci yàgg ci grand. dégg ci grand ba ci yàgg dégg ci papa. bu ma ciy dégg ma te boobu ba léegi maa ngi ci. xeeb ma nag li ma yàlla di wërsëgal. mu néew mu bari maa ngi ci suuf di faj ay kon sant yàlla bu baax nit da gëm sa bopp nekk mm. xale taxul bañ am jom mm-hmm. Mm-hmm. gëm leen seen bopp nekk leen ci li ngeen ne bu dee da ngay jàng jàngal mm-hmm. jàng nekk ci occupation bu fekkee da ngay jàng métier jàngal sa métier bu fekkee da nga am sa métier te bañ a xeeb la nga yor nit da gëm sa bopp gëm sa bopp mooy lan mooy teel a yeew teel tëdd tey jaamu yàlla tey yem ca la nga am te xam la tax a jóg des fois damay tooñ booy damay gis man damaa bëgg a tukki man na la booy hmm. yàlla na la yàlla yóbbu bu dee moo gën ci yow waaye nag boo demee hmm. ku la fa jiitoo 10 ans parce que boo amoon boo ñëwee hmm. demee xool ki bees nga ànd moom parce que xamagul dara ci dëkk ba ki fa jiitu 10 ans ba amoon lu mu boo ñëwee da ngay ñaan aas bu gis ko mais dafa tardé bu kum tardé boo ñëwee bu ko xarit boo ko defee xarit doo dem parce que fi mu jaar ngay jaar rek yàlla rek moo xam mais nag ki fa yàggul comme yow seetal kooku xarit. defal kooku xarit mu xam ne ne carrément kay yéen a bëgg ba da ngeen ubbi si. Mhm. waaw macha allah loolu aussi kàddu yu am na solo bu baax a baax a baax maam Ali ci waxtaan bi nga xamante ne tey seq nañ ko ak suñu papa Youssou suñu papa Yoro ndax it saa su ne rek yokkute la wala lépp loo xamante ne rek day jëriñ ñi nga xamante ne ñoo di askanu Sénégal Sénégal Buzz 221 day ànd ak yéen di leen wan lépp loo xamante ne rek mi ngi ci réew mi waaye ba tey rek ci fàttali yow mi nga xamante ni aussi yaa ngi nekk ci métier wala ngay liggéey di góorgóorlu wala nga jàng aussi ba am say diplôme bëgg sénégalais gis la xam aussi li nga xamante ne moo di say projet ak say yéene contactel service bi bi commercial bi di Sénégal Buzz 221 di nga ñu jot boobaa dinañu waxtaan ak yow ci lépp loo xamante rek askan bi war nañu koo partager ak yow papa kontaan naa ci jàkkaarloo ak yow fii rek ma profité baa lay jox nga joxe dernier kàddu bi. waaw maa la gën a kontaan di nga mhm. di sant sama njaboot. Mhm. di sant sama nawle yu ma fi nekkal. Mhm. parce que ñu tam ay borom jëm lañ góorgóorlu moo ñu tax a jóg mhm. parce que ku ne bàyyi sa kër ñëw uniquement pour am ut am mhm. ñu nekk nekk bu rafet mhm. di ñaan yàlla yàlla koon na sax ba yeneen xale ñëw fi ba jàng fi métier bu mën seen métier ba seen waajur ak seen njaboot ak lépp deex booy nañ gën a góorgóorlu gëm suñu bopp te bàyyi politiciens yi nañ gëm suñu bopp te bàyyi politiciens yi ay citoyen lañ nag bu vote bi jotee nañ dem nañ toog bu ñu dara jaral ñuy jaay suñu live mhm. bu ñu ko dara jaral bu leen ko dara jaral mhm. parce que àdduna du tey rek mhm. xam nga neetet lay mujj nag may na loolu rafet yàlla na ko yàlla def ñëpp fekk ko bañ tardé amiin amiin waaw di la tamit dex ci émission bi yéen a xam ne ngeen ci bëgg yàlla na leen ko yàlla defal bu fekkee moo gën ci yéen bu fekkee gënul ci yéen tamit yàlla na ko yàlla indi la leen lu gën indi la leen lu gën. amiin amiin amiin incha allah waaw y' a pas de sous métier ni gars yi di waxee. waaw dara bëri y' a pas de sous métier. Mhm. waaw di leen sant di leen gërëm. Mhm. waaw tamit def leen ay mag ñu am barke. dem ngeen dem ba nekk télé international. amiin comme gars defee ci yenn façon télé yi fi am yëpp. parce que tout début est difficile. léegi la mhm. commencé rek petit ay jeunes ngeen. xam nga bu leen neexal ngeen defi leen mais leen ko bàyyi. jàng li ko mu doon métier. yàlla miy defar nag. yàlla doon njaboot ak ngeen bañ dem ba benn instant nekk beneen nekk dem ba benn gis seen bopp mhm. bañ beew yàlla boo beew yàlla boo gis seen bopp ci dara amiin nekk leen nit simple rek comme nit ñi mhm. xam ne mhm. ñun ñëpp nous sommes des êtres humains dëgg la ku may ñëw ki indaalewul dara kuy demit doo yóbbaale dara mhm. waaw dëkk rat moo la fay fekk mhm. te nit mënoo def lu dul fekkee liggéey nga mën a jaamoo yàlla te mhm. xam nga te bu ko xeeb lépp loo mën dimbali nit ki te yàlla tax dimbali ko te yàlla tax te bu xool ma sàmbul xool ma demba képp koo mën a jàppale jàpp te bu xool ma sàmbul xool ma demba bañ a parparloo lan lay xamee ci benn kaddu say waxut ren day noonu say waxut daaw ñu lu métti métti nga xam ne kii kat borom parole la homme de vérité lu mu la wax lool la. bu la nee tey mu rey la dama doog almay la xaar ko. wallaay dëgg la bu la nee na la may million. Mm. gëmal dina la may million. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. loo wax na nekk ci yow dëgg mhm. yàlla dimbali leen mhm. li ngeen bëgg yéen ak xam yàlla ngeen dem ba formé ci ñeneen ñeneen ba mu bokk ci télé yi nga xam ne international dañ koy fële naan bi mooy mhm. na ko te yàlla ko yàlla bu dee moo gën waxtaan bi am na solo loolu si ak suñu papa ji nga xamante tey dana loon nañ ko ci émission bi nga xamante ni moo di jug liggéey jug liggéey nag ñaax la boo xamante ne ñu ngi koy ñaax képp koo xamante ne rek yaa ngi doon ndaw dëkk ci réew mi waaye nga dëkk feneen ci réew mi euh, bul xaar kenn gëmal sa bopp xam ne yàlla yàlla yàgg yàgg yàlla day ñëw ni ko ndaw yi di waxee rek àdduna yàllaa ko moom nañu gëm suñu bopp nañu liggéey xëcc bu daggul yàgg yàgg dina dikk Mame Aly di kontaan bu baax a baax a baax di leen jox di daje si beneen numéro jërë ngeen jëf